Imaginal, de satul tollu les 16 millions si sa patron ngay wër pour xool no génne ci situation oui. Langa nga def est-ce que pour que mon am def sa patron sa patron dindi plainte bi loolu la Bintou Diop def benn gérante multiservice dafa doon jéem a naxaate faf ñu nax ko de dañoo ñëw pour découvrir histoire bu extraordinaire bii Bintou Diop dund pour xam lépp fu mu Bintou Diop dafa dëpp keesu patron mu ci situation go compliqué tax mu dem contacter benn sëriñ sëriñ bi nag am ñu mu leen booleel ñoo xamante ne dañ ko waroon jàppale mu génne ci problème bi mais foofu le situation bi gën a empiré ñoo ñu ko ci problème nañ ko gën a dugal problème ginnaaw ba en contact avec kii Bintu Diop ñoo fexee jël si moom lu toll si 7 millions si kay nekk qui ki 2,5 millions ou nañ def ba jël non Simon. Tinko Gomlo moom ko ko ne mon puye khalsui komsa mumunarambu se c'est pas patan wa mena le nyan nyon et eskrolen a complicité u selinwi selinwi de khudum gomlo connaît mon na fexe ba patron fatem binmi ginnaw de defé ben liggéey liggéey gogu non nak da fay la ay parfum parfum yoyu non ak mercure bi mo la wara jappale pour ñu mon te multiplier khalis wi mais lol mu jewul fen parce que sonna si dañ ko mujjé japp té su fay lu khalis jamour dañ ko tek ñaari wéru kasso kanta selinwi ingo tejjo tolo ci 6 mois de prison